le fait que jinne bi jël jabaru jàmbur du ci lislaam wax. xam nga jinne moom ak doomu aadama. ku nekk ci ñoom ak euh, sa morom nga war a takk. araam na comme na ko lislaam araamee ci doomu aadama noonu la ko araamalee tamit ci jinne yi nit amul droit seeg jinne jinne tamit amul droit seeg doomu aadama mais am na doomu aadama yoo xamante ni dañoo dëgg fi parfois dañuy toog ñu naan man am naa jabar jinne loolu ay wax loo yoo xamante ni yenul maanaam parce que dangay xool tey shayatin yàlla moo leen bind ñoom ci safara ñun yàlla moo ñu bind ci ban tey jii est-ce que safara ak sonde mën nañu ànd ne est-ce que safara ak sonde mën naa mënta ànd saa yu ñu ànd ñu ñaar dañuy ruy ñun ak ñoo non dama ni comme seen mëne yi ñoom safara la ñun tey jii dafa mel ni comme misaal laa joxe daal loo xamante ne safara la ak loo xamante ni sonde la est-ce que mën naa ànd mënta ànd ñoom mënuñoo sëy te doomu aadama mënoo toog nga gis jinne xanaa jinne bu dof mais nga toog nii gis jinne ni ngeen sëy nii am na ñeen ñoo xam dañoo dëgg fi dañuy toog ci émission yi parfois naan sëy naa ak jinne am na ay doomu jinne loolu yëpp ay danger la nit da wax noo xamante ni lu gënul maanaam nit ñi yeewu leen sëriñ ñi am na ñoo xamante ni naxaat rek lañu fi nekkee xool leen li nga xamante ni moo gën a yenu maanaa ngeen kay def ngeen jéem a topp charia ak sunna loolu la yent yëpp di digle te loolu la yàlla bëgg tamit incha allah ku moom doo bii nii la dama la bëgg a ne maanaam symptômes yi nga xamante moom mooy euh, yi ne nit ki dafa am rab dafa bëri quoi mais dañ siy dañ siy junj quelque rek bokk na si par euh, symptômes yi ñaar ñaari dañ koy dañ koy dañ koy diviser si ñaari étapes deux deux étapes première étape bi mooy euh, li nga xamante ne moom mooy gént yi moom mooy les les cauchemars comprendre nit yi muy gis si gént yi deuxième étape bi mooy par exemple nit ki mooy nit ki bu fekkente ne mu ngi

Euh, wala boog euh, kii nu mu tudd palpitation muy tiit gaaw a mer yooyu yëpp ay pal ay symptômes la yoo xamante ne da koy gis des fois muy lié day lié ak mé symptôme médecine moderne. comprendre léegi des fois euh, nit nit nit ko dugg ak ak yeneen yu bëri bëri bëri am na tamit couche cauchemar yi ah cauchemar mooy par exemple nit ki gën gént yi gént yeeg gën cauchemar di nga xam nit day gént ñu koy dàqee wala muy xeex ah wala mu gént nekk nekk nekk si ndox wala muy gis ndox wala mu gént di yéeg wala mu gént jóge si kaw di daanu gënti nek ci auto ah surtout mesure pas da ngay ci nit naan ma damay tout temps may gënti nek ci auto wala moy voyager comprendre ngay gënti di yegg gënti wala ngay gënti di sey hmm gënti di sey nak dam ci dam ci taxaw tuuti pour pour jema leral parce que euh, ba dañ japp na gënti sey lu ci ëpp rap la dédé des fois mën na baña nek rap comprendre mais naka ngay xamné rap la fekké dafa fréquent par exemple euh, nga gis ne ki tout temps mu ngi sey maam dafa fréquent tout temps tout temps bu boba après nga nga daal koy consulter nga daal di andi euh, consultation yoo xam euh, kii ay réponses yoo xamante ne dafa yu yu mu doon yu mu doon yu muy sentir en état d'éveil nga daal koy comparer ak ñi euh, nga xamante ne moom mooy cauchemar yi en ce moment di nga xam ne kii dafa am faru wala boo kii dafa am cooro mais bu su fekkente ne moom dafay daf ko dafay gént di sëy te loolu fréquent day ñëw une benn benn yoon si weer bi wala boog ñaari yoon si weer bi wala boog euh, euh, chaque weer benn yoon bu boobaa si nga xam di nga xam ne kii c'est normal da nga koy poser question est-ce que yow am nga jabar bu boobaa su nekkee am na jabar nga ne ah euh, kon kii dañ ko war a xoolaat kon boo mot am na rab fa rab wala am na jabar bu nekkee amul jabar c'est normal bu boobaa nga xam ne kon kii ah dafa nekk si mbir temps salbette et puis c'est normal loolu day daal salbette yi bëri. shayaatine actuellement nii lu gis ni dañoo gën a bëri dañoo gën a am doole te nit ñi léegi a feebar dañoo gën pourquoi e, on t'écoute. pourquoi les djinns attaquent les humains. Hmm. tout d'abord les humains ne croient plus en Dieu. Hmm. que dès lors qu'ils ne croient plus en Dieu. Hmm. les djinns il n'y a plus de barrière entre eux et les djinns. et en même temps les gens croit trop à la magie Donc la magie, on nous donne des sacrifices. On leur donne des aumônes. Avec ces sacrifices et ces aumônes, ils arrivent à avoir de la puissance et à attaquer les humains. Quelle est la solution Je vous ai dit qu'ils ne croient pas en Dieu. Non, moi D'abord, mhm. la solution à ça, c'est d'abord de croire en Dieu, de, en la foi. D'accord d'être sincère. D'être Et en même temps, faire vos invocations. Invocations, d'accord, c'est comme ça. Il y, a des, il a des invocations qui mettent des barrières entre les humains et les djinns. D'accord. Ok. Mais tu viens d'où, toi Moi, je viens du Yémen. Yémen. Yémen, il y a des djinns là-bas Il y a beaucoup de djinns là-bas Il y a même les patriarches là-bas. Les maisons qui l'entourent. Il y a de la sorcellerie. En pagaille. En pagaille. Et les, ces sorcelleries sont destinées à qui sont destinées entre, sont destinées aux couples, aux maris, aux enfants. La sorcellerie, hmm. elle peut atteindre toutes choses si Dieu le veut. Si, si, mais non, je, ne dis pas ça. Je dis, hmm. est-ce que si on est proche de la sorcellerie, hmm. est-ce que ça peut nous atteindre ça les affaiblit. Ça les affaiblit. Donc, ils, vont essayer de, nous, de attaquer parce que. Tout d'abord, mhm. À Dakar, il y a de grands problèmes. Il y a Il y a les quatre ambassades, les deux ambassadeurs qui sont là à hmm. Dakar. À Dakar Ambassadeur de qui De De Iblis. De Iblis. sont là. À Dakar. D'accord. Quels sont leurs rôles leur, rôle. Leur rôle, c'est de divertir les gens et de les dévier du droit chemin. De, de divertir les gens et de les dévier, du, Trois du droit En faisant quoi en faisant quoi Quel genre de manifestation D'abord, mhm. ils vont faire la promotion mhm. de la musique. Mhm. Ils vont faire la promotion du sexe. Du, sexe. Et en même temps, ils vont les égarer et les détourner. De la promotion de la musique, la promotion du sexe. Hmm? Et quoi aussi Et les dévier, les de la voie d'Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Donc ici au Sénégal, c'est pour cela, actuellement, la musique a de l'ampleur ici. C'est pas seulement au Sénégal. Hmm? Partout, dans le monde. partout dans le monde. Mais ici au Sénégal, euh, la musique a tendance à, avoir de l'ampleur ici. Souvent, hmm. chaque, jour que Dieu fait. Hmm? des états plus puissants. Il y a, des. Musique maître. Il y a des. États plus puissants que le Sénégal où la musique règne en maître. Oui, oui, je sais, comme, aux États-Unis. Hein Comme aux États-Unis À l'Occident, À l'Occident, oui, je sais. Il faut appeler nous, nous allons parler avec lui en, en, en, non nous, nous, nous, nous jinne bi nous, olof parce que jinne bi hmm. euh, nous, nous, la français la la nous, quoi français la ñuy wax ak nous, nous, nous, réalité la si nous, hmm. la français même si nit ki lu hmm. la nous, bu mu nous, nous, lay wax comprendre nous, déjà nous, nous, nous, nous, la nous, jinne bu nous, la nous, nous, nous, mu nous, la comprendre nous. nuux moom tam dañ ko tuubal tuub na bu yàgg moom tam mu ngi ànd ak ñun di liggéey ak ñun moom tam tuub na mu ngi fii si moom léegi nuux tamit euh, moom macha allah moom euh, mooy mooy ñëw di ñëw wax ak ñun hmm. xibaar ñu tam ay information incha allah ñu euh, foo jóge nii Saudiya la jógee ah, nga jógee naka waa Saudiya ah? ñoo léegi ñun tey dañ ñëw fii jiw pour jéem a jéem a waxtaan ak yow si maanaam xew tey xew Sénégal fii. Euh, affaire fi affaire faj moo ñu yitteel daal ñu xoolee naka lañuy ñuy jéem a defaraat doomu aadama yi ne xool solution boobu la ñuy ut solution boobu yow loo si xalaat yow. delluwaat si yàlla. delluwaat si yàlla. tënku si sharia. tënku njabar bi. wàññi njabar bi. Sénégal njabar rek. Sénégal njabar rek. man fii laa nekkoon fii Sénégal. Mhm. bi ma tuubee ma jóge fii dem Makka parce que mënuma fi toog mhm. nit ñi topp nañu jinne mhm. topp ñu mhm. ba ñun jinne ñu commencé ñuy xeex suñuy biir mm, njabarkat yi ñoo gën sonal jinne yi léegi léegi temps benn temps mos naa jàpp benn am naa mos naa am xarit malien bu ñëw fii moom lu mu wax mu ne Sénégal moo ëpp nja euh, njabar euh, affaire njabar si euh, si si Afrique yi même si monde bi bu motul affaire loolu daf ma. mais jinne yi amuñ benn kàttan ci kaw jullit bu gëm yàlla bu ñu amoon kàttan ñun ñaata jinne ñoo ñuy menacé. yàlla rek rek rek moo ñu mën a jàppale léegi pot dañuy jël benn pot dañuy sow ci suuf pare jël seen bagage raxas ko seen awra astafurlah raxas ko ci pot bi jël group bi def ko ci ak ñeenti puso. yaa ngi dégg ñu fanaanal ko dëpp ko fanaanal ko ba ci lendemain bu ñu ko jëlee dañuy dagg seen yaram xoos ko léegi bu ñu ko xoosee dañ koy def ci ay euh, jël ñeenti puso yi wax pe euh, euh, ñeenti penc yi ñu war a wax yaa ngi dégg ñu jël ko garaate ko def ko ci ay njar wala ci ay lekk képp ko lekk da nga leen toog par force te doo ci mun dara mm. sa yaay bu waxee doo ko dégg sa maam du waxee doo ko dégg képp ku leen mën a wax dara tam duñ ko dégg mm. léegi loolu nag mooy waral parfois ñenn ñi nga gis te loolu mënut a wax ci seen euh, ki leen jiite moo xamante ni seen sëriñ la wala seen leen duñ ko dé duñ la dégg xam nga. da leen di jaral rey seen bopp ci lépp effort bu ñu mënti def dinañ ko def ñoom pour lan pour yóbbu ko seen sëriñ wala genre ñu noonu. ñun lu ñu war a def mooy lan mm-hmm. jéem a jàppale doomu aadama yi mm-hmm. xamal leen ku yàlla mm-hmm. xamal leen lu sunna santaane xam nga ñu jéem a def noonu ñun suñu faj bi yemuñ ci faj kese mais dañuy woom tamit nit ñi teg leen ci yoonu siraatal mustaqim parce que ñun mission yu ñu yor mission yeneen bi lépp loo xamante ni shirk la dañuy xeex loolu pour mu dañ lépp loo xamante wàllum njabar la nit ko am dañ koy njabar ba téye ko ba mënatul moom boppam nga xamante ni tey ji chaatin moo koy dirigé ak comme bu fekkee tey chef de entreprise shayatin yi ñu boole ak ay shayatin yoo xamante ni ñoom ñoo leen manipuler tey jii da xool ñaata entreprise ñoo fi nekk yoo xamante ni ñu leen gérer ay BFM lañu nga gis ñu yoo xamante dañuy jàng ba am seen diplôme te nu mënuñoo gérer dara fekk kii am BFM moo ngi toog ay gàllaaj yoo xamante ni kenn du mun a ngaan ba ci patron bi sax dañ koy yeew yeew boo xamante du mën a rëcc luñ ko wax loolu la ñuy def am na benn jinne ba mu mun a mos a menacé mu ne ma man képp ku ma menacé woon rey naa ma ne ah man waaw bés ñëw moom moo ci kooku nga xamante ne jinne bi ci moom la nekkoon te kooku façon sëriñ bu nekk dem na ñu bëri jinne bi faat na leen te ba ma ko moccee jàpp jinne bi ma ne ko yow yaa naa da nga lu tax mënuma ko mënuma la faat parce tey si suba rek ne laa ilaha illa allah la sharika la loolu mooy ko alhamdulilah bi noonu laa waxee ma ne kon xam nga rek yàlla mooy dëgg mu ne waaw ci la jaar tuub kon tey ji fii yàlla rek a fii même bu fekkee da nga nekk ci voyage mm-hmm. nga julli fajar ba pare def say doa def say azkar ba pare génn dem bépp bépp ay moo xam euh, balaa la mm-hmm. moo xam njabar la moo xam musiba du lu musa dal mm-hmm. loolu loo xamante ni dafa jóge ci yàlla subhanahu wa taala maa ngi maa ngi jéem a dëggal moom kii lu muy wax sànq ni mm-hmm. sànq wax na lu am solo maanaam euh, surtout wàllu affaire faj mi nii nit ki da war dañ dañu war a dañu war a tënku si moom mooy euh, diine. Mhm. parce que faj bi dafa nekk loo xamante na ko lu am solo c'est très important lan moo tax ñu ne daawa la. Mhm. parce que euh, ñun ñun ñun dañuy jéem a faj loo xamante ne maladie miskil la. Mhm. léegi kuy faj fa feebar yooyu. da nga war a jox sa bopp yàlla subhanahu wa taala. comprendre tënku si euh, alquran tënku si sunna. léegi loolu boo ko defee yàlla moo lay dimbale mais ñu bëri tey ñu ngi def ruqya ñu ngi def ruqya waxuma mënuñu ko mais ruqya dafa am lu mu làmboo. dafa am lu euh, nit ki nu mu war a comportement yu mu war a comporté moom mooy tënku si Alxuraan tënku sunna génnee li nga xam te moom mooy kibir si boppam génnee ngistal euh, rëy rëy génne ay maanaam seetal si boppam si mbir yu bëri mu dogal ki parce que la la dañu naan comme ni ñu koy waxee rek une charité bien ordonnée commence par soi-même comprendre booy taxaw dooy taxaw naan euh, da ngay ñëw ngay ngay tuubloo benn jinne di ko nga ñëw taxaw woo ko ba tuubloo ko tuubloo ko pare fekkee yow ni nga koy tuubloo di ko waar fekkee yow tënkuwoo bu baax si diine ñu ngi nettal benn xisa Euh, euh, kii nu mu tuddati imaam Ahmad ibn Hanbal euh, Ahmad moom benn jour dafa toog dafa toog ma ñu andil ko benn benn ko kenn ko jigéen léegi bu ñu ko andilee ko jigéen ki mu daal di koy commencé di ko mocc ñu ne ko ñu ne ko kii dafa am rab léegi ku jigéen ko mu ñëw taxaw si wetam mu ne mën a jinne bi génnal wala boog ma dóor la ah 70 coups si sama dàll bi comprendre jinne mu daal di ko dégg naa sa ndigal damay génn mu daal di génn. ñu toog ay diir imaam daal di génn aduna imaam Ahmad léegi ñi ko bu mu génne aduna après benn benn jour soxna soosu daal di daanuwaat bu mu daanoo rek ñu woo ñu woo kii euh, nu mu tëdd benn ndongom mu daal di déplacé wu dem mu yóbbaale dàll bi mu ñëw moom mu ne mu ne mu ne mu ne femme bi génnal wala ma dóor la mu ne kii mu ne jinne bi si femme bi mu ne génnal wala ma dóor la jin wi daan daal ko taxaw mu xool mu ne génn ma du ma topp sa ndigal mu ne ko lu tax mu dafa ma imaam Ahmad dafa toppoon ndigalu yàlla moo tax ñi ñi daal di ommatu topp ko moom tamit moo tax yàlla yàlla daal di daal di daal di ñu koy déggloo comprendre moo tax ñun yàlla daal ñu koy déggloo ñu daal di dégg ay diggalam kon salaam rek dégg nga wax ji de mm-hmm. jinne bi daal di totuwaa ji imaam ahmad dafa dama ommatoon carré mm-hmm. dafa demoon ba jeex si yàlla mm-hmm. jinne bi dama daal yàlla daal déggloo jinne yi ñu di topp ndigalam moo tax jinne mën man du ma génn gis nga wax ji de cela veut dire kon loolu loolu ni ni ñu siy déggee leçon jàngat boobu dañ siy déggee ne kii woote woo euh, raaq yi kii woote woo mocckat wala fajkat ak lépp yow da nga war a man comportement boo xam ne comportement bu strict si wàllu jaamu yàlla te seytaane amul kàttan moom ñemewul koo xamante ni dafay jaamu yàlla comme ni ko yàlla santaane di nga gis koo xamante ni mm-hmm. loo ko laaj ci alxuraan mu wax la mm-hmm. mooy lan loo ko jam ci alquran mu tontu la aaya bi mm-hmm. aaya boo ko laaj ci alquran lu yàlla wax mu tontu la hadis boo ko wax mu indi la fekk mu faj fek xamul dar amu ben xam-xam. parce que fi bëri ay imam yo xamanteni ni nii dañu am problème man walen fajj di fajj seen soxna wala ñu bëri ño xamanteni tay tey am nañ xam-xam ñoma gëna jàng fuf te terewul xam-xam yàlla dénku leen. yàlla moy jël lu ko neex installé ko ci jamm yàlla bu ko neex. mais ci biir lool non ñu la jox yo yàlla dara sas moy lan yo doom adam yi dañ xol lu ngay organiser ñu lu ngay jàppalante ñu xam nga.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 lu mel ni euh, faju rab comme ni ko mbokk yi di waxee mooy ruqyatu charia di faj ci wàllum rab di dindi lu lu mel ni xàmm ko yàq lépp lu xeetoo shirk dañ koy xeex mooy lan mooy lu mel ni euh, ñenn ñi nga xamante ni dañu amee pacte comme lu mel ni tey jii suñu mbokk séeréer yi wala suñu mbokk njëb yi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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ۖ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الحمد لله دريت دفن لو خمتين وخور دايوار ولي حجام لنكور دفن موي دفك فانتوس لب لو خمتين njabar la dafa nekk ci yaram wala bépp deret bu dee boobu dafa nekk ci yaram dañ koy jéem a dindi daal incha allah en même temps suñ nga suñ ko defaree pare dañ koy muur mocc ko ñaan yàlla li nekk ci moom yëpp yàlla dindi ko incha allah. Ah, ñun yàlla dafa dogal comme loolu mu doon wax léegi ñun daf ñu daloon mais bi ñu yàlla boolee ak moom daal si lañ si si la si la maanaam bi ñu toppee seen traitement daal si lañ am tawfeex. yan yan genre feebar yooyu nga yaakaar ne su fekkee ne mën nañ ko wax ba moom faj faj na ko. bon c' était un peu compliqué compliqué woon na trop. oui parce que pratiquement xam nga bu ñoom boo ñëwee dañ lay consulter. Mhm. bi ma ñëwee jàmbat sama tawat daf ma ne yow il faut ñu consulter la bi mu consulter nag si la ma wax ne ma maanaam yi dajee si man dafa bëri mhm. donc il faut ma def traitement. si laa def traitement première séance affaire yi des ba léegi mënuma comme que dafa yàgg si il faut nga continuer ma continuer defaat deuxième séance noonu ma continuer ba dem ba léegi ma bokk si kër gi daal waaw ba daanaka léegi pratiquement ñun laay fréquenté yooyu mais daal sant naa yàlla bu baax أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون dërëb bu dee bi moo nekk nii gis nga am naa suuf gu génn ci moom parce que yàggul dar lu mu fi jógee moom it ñu defal ko ventouse actuellement nii lii moo génn ci yaram te lii nii yent bi dafa digle sallallahu alayhi wa sallam chaque mois nit war na ko mën a def ben yoon ba ñaar yoon bu ko mënee parce que dara loo xam ne lu gën ñun ñi suñu bopp ni dañ koy def chaque mois deux fois parce que ñun ñii di faj ci wàllum ruqya ak charia ñi ñuy xeex dañuy bëri moo tax toujours dañuy waaje suñu bopp mooy lan di ñaan yàlla yàlla di ñu aar di sàmm tamit suñu yaram mooy lan di def suñu adkaaru sabax wal masa comme ni ko sunna sànq euh, euh, jàngale di def tamit ay ay xijaam tamit suñu yaram ba pare dañuy moccante tamit suñu biir بسم الله الرحمن الرحيم فقال فرعون اوتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ñi amee ay genre AVC wala ay genre Parkinson dafa bëri trop trop trop trop te lii nii nekk na loo xamante ni lépp loo xamante dafa nekk ci biir yaram bi muy deret bu dee bi lépp day génn

am aspiration chaque fois man de si ñoy la bokk té xam naa ne ñëpp noonu lañu mel mais man demoon na ba tout temps blocage contrainte blocage contrainte blocage contrainte si kaw lolu ma gissone ne que euh, manam ma tollu fo xamantene ne damay gën a waxtaan ak sama bopp parce que lepp doon andi ay problème lepp blocage mais ne xaaral ma toog man mo xam sama te kuy wax ak sa bopp mooy yaa ngi wax ak yàlla en même temps moo wax ak yàlla ba finalement mel ne fii daal dara resul dul yàlla mhm. du comprimé bu doon jël du gélule façon faju tubaab c'est pas que dama leen di dénigrer mhm. mais en tout cas def naa ko te résultat bi mu si yóbbu woon ko togguma ko woon mhm. façon dañuy toog sax ñu lay bëtt façon machine bu nekk def naa ñu lay bref gisuma si woon njëriñ comprendre en tout cas li mu si wuti woon awma ko ci woon que demoon naa ba nga xamante ne même respecte julli compliqué woon na trop ci man dafa melni bu heure bu sax sama xol bi day xaw bon du genre xaw benen beneen contrainte ñëwti na est-ce que xaaral xaar ba après xaar xaar mais fu mu ne nii dama koy def par amour et sans contrainte. c'est extraordinaire. dañuy faj tamit ci walum hémorroïde dañuy yëngu tamit ci walum city ak lu melni ay diabète ak lu melni ay éjaculation précoce ak lu melni ay estomac. yenn jàngoro yu bëri yu mel nii tamit euh, ay ay sinusite dañ koy xijaama tamit xijaam boo ko déggee loolu mooy ventouse ventouse mooy comme ni ko mag yi di defee mooy gajj dañ koy def waaw te garab yi ñu yor nii tamit façon jàngoro bu nekk tamit ciy faje ñenn ñi parfois tamit siti moo leen ñenn ñi parfois hémorroïde moo leen fi indi ñenn ñi parfois tamit diabète moo leen fi indi ñenn ñi tamit parfois lu leen indi euh, mel ni ñu amee ay débit AVC xam nga loolu tamit dañ koy traité waale ci wàllu faj bi daal dañuy fajaale tamit euh, lu mel ni ay soccet wala jigéen boo xam ne dafa taxaw xam nga sëy ay at yu bëri xam nga fekk benn doom la am moom mooy taxaw wala jigéen yi nga xamante ni diiraa bu ñu sëy ak léegi dina def ay trois ans wala 4 ans te mosuñu am doom ci wàllum loolu tamit dañ ciy faj incha allah dañuy yëngu tamit ci lu mel ni comme xale yi nga xamante ne parfois dañuy judd te dañu dund tamit normal comme ñu mel ni ñu xaw a rax daal loolu tamit dañ ci yëngu dañu yëngu tamit ci wàllum tànk yu metti wala ñuy amee ay problème yax yu metti tamit ci loolu tamit incha allah dañ ciy yëngu wala ñi nga xam ne dañoo amee stress ba nga am seen bopp yi toujours du tranquille loolu tamit dañ ciy yëngu daal. waaw macha allah euh, yàlla moo ñu may ndam lu bëri bëri surtout ñi nga xamante ni rab da leen sonal dëgg-dëgg ak ci yeneen jàngoro yu mel ni siti lu moom ak hémorroïde ak lu mel ni ay yax yu metti wala ay AVC loolu yàlla moo ci may ndam bu baax a baax alhamdulilah. AVC bi dañ koy traité traitement bi deux mois lay duré dafa am ay séance de massage yu ñu koy defar ak tamit am ay façon xijaab yu ñu koy defar pendant deux mois ci biir loolu noonu tamit am na garab yu ñu koy jox ak sangat yu ñu koy jox tamit aussi dañ koy mocc tamit ci ruqya ba lii nekk ci moom incha allah yàlla du du يالنين القران لب شفاء وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين نينت القران امنا اي ايات بري تي نك يو خامتاني القران موم لب سيكر لا صاح يامنا اي ايات يو خامتاني جانغور بو نك اك نين كاي فاجي واو لي نك دنج كو جانغ باسكو خام خام بي ني ليغي ني دنج كو جانغ تي لي ني تي سنه ينتبي صلى الله عليه وسلم لا بوكو parce que lépp lu ñuy def ñun duñ ko booleeg benn shirk mooy duñ ko booleeg benn bokkaal. waaw loolu du jeex bëri na fi ay bi bu bëri bëri sax patient bi du ma ci faj ci at bi ak léegi presque man na. actuellement nii maa ngi ci mille cent quarante cinq. ci at bi li ma ci jot a mooy résultat yi ma yàlla ñenn ñi seen carte yaa ngi nii ñu ma jot a fekk yéen leen traité pare damay jël seen carnet bàyyi ko fi pour mën a xam tamit euh, résultat yi mu def ak tamit nit ñu bari tamit ñoo réeree benn mbir gàllaaj yi ñu takk nii tey jii ñu yaakaar ne da leen jëriñ da leen nax gàllaaj yi ñu takk nii ay affaire charte kese la hmm. ay jinne la ñuy composé def ko ci euh, seen tour la jël composé ko def ko ci ñu koy takk yaakaar da leen jëriñ mais toujours da leen lor ñoom dañ naan gàllaaje mais gàllankoor lañ ko mën a tuddee. Mhm. ci maanaam tey da ngay gis ñaata Sénégal yi nga gis ñoo takk gàllaaj est que tax na Sénégal avancé. Mhm. avancé wu. Mhm. tey jii ñun suñu lépp dañ ko teg ci euh, mystique. mystique avancé lu réew luy avancé lu réew mooy gëm yàlla. teg lépp yàlla moom moo njëkk a teg ay programme am njëkk a teg ay chartam chartam bu ñu ko topp toppoon tey jii kenn ci ñun du sonn mais tey jii bu ñu gisee ku mel ni góor a tey jii di avancé liggéeyam di gën a dox ñu jékki-jékki ñu ne noon góor du fi avancé nu ñuy def commencé dem ci ay maamul commencé yàq góor pourquoi loolu loolu yëpp soxor la xanaa kay tey jii góor boo gisee muy avancé tey da ko war a ñaanal yàlla pour li mu nekkee yàlla barkeel ko yaa ngi dégg mais du dem ci ay sëriñ naan góor du dem góor commencé am ay problème mooy lan liggéeyam commencé yàqu bu tëddee nelaw bu tëddee du nelaw fajar buy di waaj jot mu commencé nelaw nelaw yu métti dangay dégg góor di yaakaar xëy na ci santé la fekk xamul nit nit ki moo koy def loolu loolu yëpp ci xeetu soxla la bokk. lébu yi xanaa euh, suñu mbokk lébu tey ji parfois xam yi dund nii danger la danger la moom ñoom dañu yaakaar ne da leen di jëriñ la jëriñu parce que toujours koo ci gis tey ji mu ngi am ay problème dangay dégg te toujours pacte day doon loo xamante ne day law ba ci sët sëtaat yi ñu ngi am problème xam-xam man dama naan nit ku ko yor dafa war doon lu noble lu noble mooy lan loo xamante ni tey jii dañ ciy dund dund boo xamante ni du am dara lu lay lor mais toujours ku ci daanu ci ñoom foog nga wutal ko soow wala nga yóbbu ko géej ñenn yi sax keroog am na kenn ku ci doon faj euh, bu ñu ma wooyee seen kër ma dem dama gis euh, bu mu daanoo ndoxu foosaloon laaj déjà loolu dafa salte te loolu bokk ci loo xamante ni ñun mm. bu ñu l'islam euh, civilisation moo tax ñu woote ko mais pas affaire yooyu ñun cheytan war ñoo diriger parce que yàlla nee na ñun ñoo jiite jinne ci kaw suuf yàlla mënul wax ci alxuraan par ñu deltuwaat ginnaaw ñu naan jinne ñoo ñoo ñoo diriger loolu du yoon parce que yàlla moo ne wa iz qaala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi xalifa kon ñun ñooy seen xalifa ci kaw suuf kon ñoom duñ se euh, ñun ñooy seen njiit ñoom duñu waruñoo diriger waruñu tëm di yaakaar ci ñoom ñun lépp lu ñu war a yaakaar ci yàlla lañ ko war a yaakaar mané kër gi fi amna na jinne yu jullit yoo xamante ñoo fi fii ñoom ñëpp mën nañ ay 3 millions et quelques jinne yo xamante yëpp ay jullit lépp té lépp ci dañ dañ leen xëcc di leen daawa di naxante ñoom ba ñu tuub dugg ci diine lislaam parce que diine lislaam nekk la bu ñu forcé mais képp ku ci dugg ci ñoom day gëm-gëm bo xamné day xamné carrément nit ñi ñoo leen nax di leen utiliser mais ñoom xamuñu woon seytaan nag moo leen diriger mooy iblis mais amna jinne yo xam bo len leen dañ xam diine lislaam lootuñu jegati leneen lu bon parce que ñoom amuñ yenn problème mais ñii ñi ñu am problème mooy lan xol yu soxor euh, soxorante yu ñu soxorante ku nekk ci ñoom bu gisee diw di avant euh, euh, nit ki di avancé ñu naan rek li lay jëm a yàqal loolu nekkul loo xamante lu baax la gàllaaj ji ma jot a tekki ci doomu aadama bu fekkoon ñi gàllaaj moo tax ñuy avancé

lépp ci ay patients laa ko bindee ëppoon na lii mais am na lu ci bëri loo xamante dañ ko jël gas ka suul ko parce que nekkul lu baax lii gàllaaj lañ ko tuddee mais ñun gàllankoor lañ ko mën a tuddee parce que lii nii bu fekkoon mooy tax ñoom ñu wér wala seen liggéey avancé tey ji dépassé nañ fii bu yàgg mais gis nga tey ji looy gis ay yàqu-yàqu rek ak ay feebar yu dee parce que yàlla moo ne ci alquran cheytaan day njabar cheytaan day njabar te yii ni ñuy takk nii ñu nekk seen yaram ñoom dañuy bokk kon tey jii ñu demee sëriñ dañ leen nax suul bukki sulu bukki la bëri ci sëriñ yoo xamante ne tey jii dañ naan dañuy faj ci wàllum lasraar man bëri na ci ñoom ñoo xamante ne ñëw ci man ñuy faju ci man parce que seytaan dañ leen sonal bu fekkoon tey jii ñoom seen xam-xam boobu da di jëriñ tey jii ñoom seytaan waru am porte ci ñoom te ñun waruñoo basé wu ci ñoom kon tey ji senegal yi dama bëgg ñu yeewu ñu xam ni carrément nit jàngoro boo mënta am wala problème boo mënta am jàppal nga julli ci ñaari raak nga ñaan yàlla yàlla faj la ba pare da nga gis yàlla tamit dina la boole kenn koom ku lay faj te lu mu lay fajee tamit ci charia ak sunna la ngay teg. yii nii yii nii dafa te pourtant ko tekkee ci ak léegi matul deux mois matul matul ak tamit sénégalais yi dañu am benn complexe ñoom étranger lañu gën a fonk que ci dëkk doomu réew bu ñu gisee benn sëriñ boo xam ne dafa jógee lu mel ni Mali wala Burkina Faso wala yeneen dëkk. cër bu ñu koy jox ak respect bu ñu koy jox day doy waar trop te ñooñu dañ doon ñoo xamante dañoo muus parce que Afrique ñëpp xamante nañ xam nañ sénégalais ñenn ñi dañoo gëm affaire sëriñ léegi dañu naan dañu dañuy profité dem xam nga dem ci étranger bi xam nga kooku lu mu dem mënta laaj sacrifice bu mu dem mënta wax dañ koy def te fekk duñ ci gis benn résultat fu ñu mujjee mooy lan demaat ci doomu réew mu ñëw naan ay non c'est façon sëriñ bu ne dem naa fa ba ci sëriñ diw ak diw xam nga bëgg ma tudd ay tur xam nga dañuy delluwaat ginnaaw tamit ñëwaat di faju ci ñoom gis ay résultats naan pourtant noonu laa ci mais su ma xamoon lii moom may faj kon tey ji faju naa bu yàgg lii nii da leen xettali en fait soo xoolee ah da leen xettali bi nga jëlee seen seen. seen kër xettali parce que lii xam nga charge bu diis lii nii koo xamante ne lii nii da nga ko takk seen digg gisoo ci benn résultat muy installé ci yow ay ay feebar jëriñu la comme balaa loo nañ delluwaat ci yàlla bu ñuy judd ànd ñoo gàllaaj kon tey ji bu ñuy dee tamit dañuy ànd ak gàllaaj dangay gis tey ji jigéen boo xam dafa ëmb ñu takkal la benn gàllaaj pendant neuf mois ñu takkal la gàllaaj nga koy euh, nga naan moom moo lay aar. nga dem ba ci jour bi nga war a amee doom jour bi nga war a wasinee nga dem saa soo mi tekki téere bi dagg kon tey jii bu fekkoon gàllaaj googu danañ jëriñ tey jii kon saa soo mi du ko dagg wala bu fekkee tey jii dañuy yaakaar ne saa soo mi moo ëpp xam-xam sëriñ bi ko tamit ñu wax foofu kan moo fa sës kenn muy allah kon yàlla moo wóor yàlla rek mooy mun a dimbali yàlla rek moo mun a xeetal yàlla neen tamit wasin moom kese ma ko mun a kon neuf mois yi mu def yëpp tamit ne jàpp ne yàlla moo ko aar mais bu fekkee dafa jël téere bi wakiile ko yàlla da ciy génn loxo parce que yàlla mo ne fadkuruni adkurukum washkuru li wala takfurun yàlla boko ko nekkalee rek mo nekkal yàlla ko am yermandel yàlla ko yaatu yermandel xam nga te ñun ñep dañu wara xam loolu rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب أجبنا أجبنا وتقبل منا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين mu ne dafa am na xam ne ay xeetu sëf la lii ay xeetu sëf la ak ay xeetu yeew lu ci ëpp nag ci gàllaaj yi bokkale jigéen ñee parfois da ngay gis benn góor boo xamante day am fulla ci carrière am ak seen famille mu bëgg leen bëgg boo xamante ni mënu ko tegal fenn nga takk benn soxna ngay nekk un mois deux mois soxna si jéem a def la tuuba dem ci ay sëriñ dëdd la ak say famille dootoo sa yaay lu mu la laaj doo ko def say sœur lu ñu laaj tam dootuñ ko defati ko léegi imaginer tey ñu naan ko góor dafa ñàkk fayda fekk xamuñ duñ ko sëf yaa ngi dégg te sëf yooyu ñuy sëf alxuraan lañuy jël di ko utiliser wala ñu jël ay yenn fas fas nit ki ba nga xamante ni yaramam dootul mënati dara xam nga ñu lay diriger nu mu leen neexee ñu naat ko góor gi dafa ñàkk fu la mais déedéet góor ñi xoolaa leen seen bopp jigéen ñi dañoo xaw a doy waar yi ko njëkk a wax xoolaa leen baax li ngeen def yaa ngi dégg ci lekk yi ci naan yi ci bëgg adduna mais xoolaat baax suñu bopp xam nga bu ñu ko jëlee yëngal ko ñu ne Lamine Mbengue. foo mënti nekk déet déet déet déet. Lamine Mbengue foo mënti nekk déet déet déet day jékki-jékki bàyyi liggéey bi. déet déet déet bu yëngal mais yow doo xaal gars yaa ngi fi <laughs> déet déet déet déet déet déet déet déet déet yëngal rek am non non non am na gars ñu la xaar ñu ne déet déet déet déet yaa ngi dégg Lamine Mbengue fii ak nekkul ak moom fii ak gisu ko dootul amati jàmm fu mu munti nekk bu nekkoon Europe sa tey bu ko yëngalee daf ko nii mu ñëw pour Lamine Mbengue munta nekk day ñëw day ñëw day ñëw kay te ça marche lii ça marche kon ah ñoom ñoo koy def mais affaire chaatin la day marché day marché si ñoom ah mais yow da nga ne woon sànq ça marche pas wala. est boo déggee ma la. njabar lu am la parce que yéen bi sallallahu alayhi wa sallam njabar la ko mu jaar mais du jëriñ mais fu mujjee yàlla da wàcce wàccee alquran mm-hmm. ak falak ak naas da ko wàccee muy def mm-hmm. respecté ay afkaaram yàlla defal ko jàmm mm-hmm. kon ñun tamit bu ñu jaaxlee nañ delluwaat ci alquran ak sunna nañ jàpp ci li ñaar rakk ñu ñaan yàlla yàlla faj yi te aussi ñuy góorgóorlu di nekk ak njàpp ñu mustu tamit cheytaan euh, nga parce que cheytaan dafa yow tu es protégé. mais yàlla mais am na yoo xam ne boo ko defee toujours yàlla nee na moom moo lay protégé parce que nit mënoo aar sa bopp yàlla rek moo mën a aar comprendre foog mais gala ji boo ko takkee tey ji bu fekkee dafa am benn turu jinne bu ci nekk léegi sëriñ bu defee xalwa wala bu duggee ci lenn day jéem a xool ban rawxaan moo nekk ci yow jéem a def la tur ba colobé ak rawxaan boobu jéem ko génneel ay sarax liggéey la mu jàpp. nga ne ah, ma jigéen ñi. dañu mën a wuti ay gàllaaj ndax ndax góor ñi ku ci yeggalim ñaareel ba am ñetteel yaa nga wéngal say mbaxana wuti ñaar wuti ñaar ba wuti ñetteel ba moo tax ñi di daw di wuti di wuti ay ay gàllaaj di wuti yépp tam li jibi wax may li li jibi wax ba say gàllaaj man ci saa bopp niwuma man takk naa gàllaaj niwuma takku may gàllaaj ne ak bi man saa morom jigéen fekk si woon na waaye mosuma ci sëriñ ko wutal ma gàllaaj yàlla xam na ko góor la nga koy mooma yaa koy jëf ci sa bopp jëf-jëf bi mooy nga fabli ci sa poos di ko jox jël sa xol jox ko kooku moom boo ko defee ci góor ak góor ga yaa ko moom waaye góor moom dem ci sëriñ jigéen ji muus doo dem ci sëriñ dee jigéen ju baax la dégg nga góor am xelam soriwul sori gi mi ngi ci jigen nar naa jàdd sa moroom jigéen nga ko sëñ bi tey nga def nangam nangam tey na boo ko def nangam ak nangam ak nangam lii boo ko defee sa kër sa kër dina def ni def naa bu dee góor gu am xel la dina dina dëpp waaye nag bu dee jigéen ju fiir la ju mel ni ndeykan day daal dikki daal ko <laughs> ah, man mi nga xam ne ba nga defee nangam ak nangam ak nangam góor gaw firam dem fa muy toog bay def ah du mën a toog moo tax kër jigéen yor na ko waaye góor yor na mhm. ñun ñëpp nan ànd góorgóorlu jéem a defar defar kër. am xolu muñ am am a am xolu muñ. nga ne jigéen ñi dañuy sëriñtu. jigéen ñi dañuy sëriñtu mais en général sëriñtu bi yëpp moom man suma sañoon dañuy bay sëriñtu parce que sëriñtu am benn njëriñ. jël sa xaalis ci sëriñ amul benn njëriñ. toppatoo sa jëkkër nekk ak moom si jàmm di foog moom di xante moom moo ëpp solo ko sëriñtu bi. ji bi waaw ji bi ñu bëri dañu fi ñëw man de fu mu nekk sama tànk may métti sax moo tax ma ñëw fii ci moom ñu bëri dañu ñëw fii yàgg naa fi ñu ànd naa ko sama benn sœur aussi mu faj ko boobu ba tey macha allah. am na sa sœur bi ban genre problème la amoon. dafa amoon dafa tëcc woon. waaw si accident mu woon fii am direct. léegi ji bi ñëw faj ko fi mu wér. waaw ànd nañ fi ñaar yow mu faj ko mu wér. góor mooy lan jibi li moom lii moom nit ñoo ko tasal jibi. woon ba ne moom. garabu góor mooy la garabu góor yi mooy garab yoo xamante ne dañ ko composé ak neew. at mi la pour ñi nga xamante ne dañu xaw a néew kàttan baax na ci loolu te amul benn effet secondaire te bii nii mooy jooni jooni boo ko jëlee léeg-léeg incha allah dañ ci gis benn effet secondaire boo xam ne bu lay sonal wala bu lay loolu incha allah bi mooy jooni bii tamit moo jooni jooni benn mais bii poudre la bii tamit euh, miel la bii mooy boo xamante ni bépp njabar bu nit mënta lekk incha allah bii mooy bardak hmm. bu ko jëlee infusé ga def ko ci kaas ان شاء الله بغل بغل ناني ساه داي غيس ريزلتا داي واتش داي واتش لوم ليكون ييب ليب لو خامو داني غيموسا داف داغي واتش ان شاء الله تي يالا نينا بيب ريو بو تي ادو اك جانغرو بو فو مونتا ام واتش نافا اي غراب يي فاي داي ديك سوا ني خام كو ولا ني بان كو خام ليسانسيل ليب لي نيو جيل ناي خام جيلي اك ني كو ري garab doo jékki-jékki ñëw dugg ci da nga war a gestu ba xam li muy jëriñ lan la ba soog cee mën maanaam si loo xamante ne yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñoom lii mu sant rek ñoom si loolu la ñuy dox daal de ce fait maanaam du du simple euh, traitement rek boo xam ne da nga ñëw jël garab dem kii mais sa wàllu diine sax dan la si conseillé dan la si conseillé wax la il faut ngay sàmm waxtuy julli il faut ngay woor il faut ngay moytu sobe euh, maanaam loolu lépp loolu ëpp traitement kese daal maanaam dañ lay jàppale tamit si sa wàllu diine waaw di la moytuloo euh, loo xamante ni dafa xeetoo si wàllu njabar parce que pratiquement genre feebar yooyu buñ la dalee boo demee si njabar yi rek dañ yéen lay loo day yo day yokk effet bi. nga gis nii parce que sept composants antibiotique la boo xamante macha allah dafa ci wàllu siti te yëmul rek ci faj siti lu muy faj macha allah dafa bëri.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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ۖ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم فقال فرعون اوتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل القوا فإذا حبالهم وعسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر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 kër gi tàkk waaw mais ñun man parfois am na ñoo xam dañu fi jël si parfois comme kër goom affaire chaatin la wala kër gu bëri ay liggéey wala kër goom nit ñi duñ déggoo parfois ñu jël si ma fii yëpp ma seen kër am loo xamante dañ koy jël ci suufu géej mocc ko ci alquran ak sunna wis ko ci biir kër gi dégagé lépp bépp chaatin bu fa nekk wala bépp liggéey bu fa nekk ñaan yàlla ci kàttan bu dañ ko léeg am na kër yoom xam dañuy jékki-jékki tàkk léegi am benn waaye boo xamante un jour dafay jaar mu ne ma ji kër day tàkk

parce que ñoom bëgg ñoo ñu dëkk seen kër ba pare tamit dañuy wujjee ci biir kër gi. léegi jinne yi nekk ñoo wujjee ci biir kër gi léegi kër gu nekk néeg bu nekk day jékki-jékki di tàkk ndekki bu tàkkee beneen wujj gi moo koy moo koy taal. jinne yi wujje. waaw jinne yi wujje ci biir kër gi léegi mu xëcc waa kër gi yëpp dindi gàllaaj yi nekkoon ci kër gi yëpp jël xale yi. ma mocc leen ba may moccee ci laa jàpp foofu benn jinne jinne bi commencé ma expliqué affaire mais avant mu may expliqué sonn na trop. léegi ma jàpp jinne bi mu expliqué ma kaa bu mel noonu ma ne ma carrément fii samay ñoom maam dañuy wujjee te ñoom ñëpp ku nekk ci ñoom dafa fiir de fiir bi ñu fii moo tax ñuy taal kër gi. te ba ba ci jigéen ñi tamit am nañu am nañu seytaane ñoom dañuy dugg ci biir jigéen tamit di seeg ñoom ku ci tëdd ñoom ci ñoom guddi tamit dañuy jékki-jékki seytaane di la sonal. di jeki jékki tamit euh, di taal sa néeg yëre yu bees yu nga yor tamit da ngay jël xotti ko ba pare day jël ay portable di ko yàq lu yéeme laa lay wax nii. jël portable di ko yàq génne yàq waaw ba pare di jël ay cabine parfois di ko teg ci ay di ko di ci ay lii. mu walla rek comme tey ji dëkkuwaay ak waruwaay ak soxna ñoo jëm balaa nga ciy dugg foog nga seetlu ko seetlu ko mooy lan julli ñaar raak nga ñaan yàlla bi lii bu fekkee dafa gën sa dund. gën sa diine gën sa àdduna ak sa àllaaxira yàlla na ko yàlla yombalal bu fekkee gënul ci yow yàlla na la yàlla jox leneen mais parfois am na sëriñ yoo xam ne ay sëriñu dóorkat lañ boo demee ci ñoom dañ naan lañ a di saxaara nga jox na sa 5000 francs sa 2000 francs ñu jël loolu lekk ka te be fekk lekk boobu ñu ko lekk seetluñ la dara te boo leen woowee tamit lu leen neex rek lañ lay wax kon nit ñi ñu yeew nit bu fekkee da ngay wut dara listixaar mooy lan jàpp julli ñaar raak nga ñaan ci yàlla yàlla defaral xéewal am benn femme boo xamante mbuur la nekk moom dafay jékki-jékki këram di tàkk. dëkk bu ñu def ci biir kër gi léegi kër gi day jékki-jékki di tàkk néeg bi day tàkk néeg bi bu fay beneen néeg bi tàkk ndekete jinne yu fa nekk dañuy vengé wu dañoo mer bu ma jàppee benn jinne bu mag bi ci ñoom nee na ma kii moo ñëw ba suñu dëkkuwaay mu jël def fa fuur lakk samay doom yëpp hmm? waaw mu walla la carrément yenn danger yi nga xamante ni ñaa koy def. am na benn sama benn waay rek fan yi passé am na benn cas bëgg dal benn waay ba mu danoon dem jàkk for benn xeer rek sànni ko avant muy génn jàkk ji paralysé na buñ moccee ba jàpp jinne bi ci moom lu mu wax waa moom sànni xeer mu fay ah mu fay mu fay am euh, euh, na benn patient boo xamante ci biir semaine te am naa kaabu bu mel noonu moom it dama ko dafa dafa jékki-jékki di sentir yaram bi di mel ni luy lox ma mocc ko jàpp ci moom jinne bi jinne bi tamit bu ma ko laajee ma ne lan la mu ne waa ji ci biir kër gi day jël ndox yu salte rek ñu ko tuur hmm? ay cas yu garaaw yoo xamante ne parfois da ngay gis nit ki da def jinne moo tax gis nga respect dafa am solo ñun ak ñoom ñoo dëkk hmm. lépp lu ñu def nañu bismillah ñu teg lekk yi tamit nañ koy ub dafa am solo hmm. lekk ñuy lekk yi nañ koy ub te néeg tamit boo euh, boo ñëwee danga xam ne carrément ñàkkul am na ñoo ko bokkante da fëgg ne bismillah nga dugg waaw am na ñoo ko bokkul am na ñoo dëkk

te aussi tamit ba ci lekk yi tamit duñ ko ub duñ ko ub te buñ ko ubul seytaan day jënd njabaram sànni ko ci bu ko sànnee nag mu jural ay jàngoro yoom doo xam da ngay dem hôpital parfois xool rajo def écho def lu ne te duñ ko gis kon tey jii nañ def ndànk waaw wujj jinne jinne bu fa nekk ndekete dafa am lu mat juróom-ñetti jabar yoo xamante ay jinne la ba pare ci xale jigéen yi nekk ci biir kër gi tamit ku nekk ci ñoom da ko jàppee tamit comme jabar ah. dafa am jabar ci jinne yi am jabar tamit ci nit ñi léegi parfois bu féké kenn ci ñom ci xalé jigéen am les seen jëkkër dañ fa aye ne day jékki-jékki di yak néeg ko Les jékki gis armoire bi tak wala jékki gis bop lal bi tak té du xam lu ko les kër gi ba kër gi ñom ñëpp ñu a tamit. ba kër gi ñom ñëpp ñu a tamit day les tal ligne bi. ligne bi. Hein? ñu ci ay tamit. amul néeg bu mu fa taalu par benn néeg lay jël bu néeg boo fayee mu jëlaat beneen néeg. di est-ce que jinne dina joxe dépense. <laughs> jinne ah ñoom seen côté ñoo xam ni ñuy dundee loolu moom wallahu alam hmm. mais bu fekkee doomu aadama yi ñoom li ñuy dépassé ci lañuy dundee. Hmm. Hmm. à gauche non dem tout droit ah. xaw ma ne ñoom ni ñuy dundee seen mbir mais mos naa waxtaan ak benn jinne mu ne ma yéen seen togg moo gën a neex suñu togg. mais ñun ñoo leen gën a sell togg hmm. ma ne ko ci naka mun ñu suñu togg du bëri ay yenn produit yi ba pare suñu toogee tamit dañuy wéeru dañuy dañuy wéeru ah. ñoom dañu toog mu te euh, wéeruñ te jinne tamit du lekk-lekk boo xamante ne tamit dafa tàng hmm. lépp lu mu lekk tamit du doon lu bees